salaamaaleykum mbokki téléspectateur VF TV ñu ngi leen di nuyu euh, ñëw ci li nga xamante ni mooy rubrique sport muy tàggat yaram euh, ci li nga xamante ni mooy actu plus euh, tey nag li ñu indi ci li nga xamante ni moom mooy sommaire bi bokk na ci handball dinañ ci waxtaan ak Olympique handball club bu Diourbel en garçon et en dame demi-finale coupe du Sénégal mais aussi dinañ ñëw ci li nga xamante ni mooy. Euh, contrat bi nga xamante ni c'est ficelé avec le Bayern de Munich euh, muy euh, le Diato Sadio Mané dinañ ci ñëw mais dinañ ñëw aussi ci li nga xamante ni mooy CAN féminine bi nga xamante ni suñu gaynde yu jigéen yi dañ koy jongante fële ca Maroc mu nekk loo xamante ni Coupe d'Afrique bu am solo loolu mooy ñett yi nga xamante ni dina leen ko indil tey ci li nga xamante ni moom mooy seen rubrique sport ci Actu Plus comme ni ma la koy waxee woon ci sommaire bi Diourbel dafa am benn équipe boo xamante ni dañ koy wax Olympique handball club euh, depuis quatre ans nag euh, dafay ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, dernière ligne yi daaw moo jël li nga xamante ni moom mooy coupe du Sénégal gagné li nga xamante ni mooy Gorée à Dakar gagné ko ren mu ñëw performance bi mu ànd ceeg li nga xamante ni moom mooy les dames muy jigéen ñu ñëw ba li nga xamante ni mooy en demi-finale weekend bii lañ ko doon joué à Dakar Stade Iba Mar Diop Euh, li ñu ciy tàkk nag mooy ñaari match yëpp équipe bu juróom bi daf ko ñàkk dañoo gañe góor ñi gañe jigéen ñi euh, bu ñu xoolee góor ñi ñoom ñoo njëkk a fubal bi ñu joué ba pare ñoo njëkk a handball di moins euh, bi ñu paree si la jigéen ñi soog a jël à 18 heures góor ñi ñu ngi démarré seen match à 15 heures kon dañu jàpp ni góor ñi ñu ngi doon tase ak UGB muy université Gaston Berger bu Saint-Louis moo leen gañe score bi nekk li nga xamante ni moom mooy. Euh, pratiquement 33 à 27 xam nga ni loolu barewul mais li ma ciy jàpp ci équipe boo xamante ni daaw yaa jël li nga xamante ni mooy coupe du Sénégal ren nga ñëw ba demi-finale tase ak mu gagné la li nga xamante ni moom mooy 33 à 27 dafa am ay gàllankoor yoo xam ne dafa amoon ci équipe bi l'équipe n'avait pas les moyens pour dem ci li nga xamante ni moom mooy demi-finale yooyu parce que déjà rek ñoom ay 14 heures lañ ak Dakar dañoo amoon ay difficultés pour am bis bu leen yóbbu. fi nga xamante ni moom mooy Dakar fu ñu joué ci ay conditions yu difficile dañu dem le 14 heures le temps ngay añ départ dem stade euh, Iba Mar match bi démarré loolu mooy li nga xamante ni mooy contre performance bi nga xamante ni moo dal Olympique Handball Club ba ñàkk li nga xamante ni moom mooy euh, titre boobu nga xamante ni moo ko téye woon trophée boobu muy trophée coupe Sénégal gagné woon ko daaw ren mu ñàkk ko en demi-finale kon. Euh, man li ma ciy def rek mooy appel bi ma ciy def mooy les autorités Diourbel muy la municipalité le conseil départemental euh, le ministre les na ñu jàppale li nga xamante ni moom mooy euh, Olympique handball club ak beneen club bi fi nekk muy Medina handball club muy basket tous les disciplines parce que déjà Diourbel waruñu jël benn xaalis rek di ko jox li nga xamante ni moom mooy benn discipline dañuy xool ni nawetaan à chaque année dañ leen di li nga xamante ni moom mooy Euh, budget bo xamanteni dina mat 7 ba 8 millions jox ko les ASC ak li nga xamanteni moy final coupe du maire euh lolu maire bi war na ci ressaisiru am na année waxoon na ni euh na ko ba woo woon li nga xamante ni mooy waa wo ji woo taekwondo woo handball bo basket hein ah, wo li nga xamanteni moy mooy ku nek mu jox ak dara mais dynamique bobu ci la maire bi wara continuer xamni aussi ni affaire bi discipline yeb ñoko bok malgré que nawetaan football la. war nañ leen jox mais bu duñ jël lépp jox leen ko bu ñu amee dix millions ñun moom lañu war a joxe mais buñ nawetaan comme ASC ñu ëpp bu ñu joxee nawetaan cinq millions mais cinq millions yi si des nañ jël yeneen discipline ku leen jox la un million. kon ñoo ngi lancé un appel équipe bu bees bi nga xamante ni moo fi nekk te aussi le jeune Thiékoura Papy nekk adjoint au maire nañu fexe ba ki nga xamante ni mooy loisir sport ak culture mu yamale li nga xamante ni moom mooy. dispatching bi ci walu subvention yi par rapport ak taekwondo basket kung fu karaté lutte ak handball ku nek mën am subvention di nga mën dem mais li contre performance bi baaxoo ci ta on bal bi tay nek na au sommet kon dañ leen wara jappalé jàppale euh, kon loolu moy li nga xamanteni mom moy xibaari ci walu goor ñi IGB mo leen gagné université Gaston Berger bu Saint-Louis moo leen gagné 33 à 27 jigéen ñi à 18 h ñoom ñu ñëw. gis nañu temps yëpp aussi ñu ngi doon def performance di gagné seen i match di gagné seen i match ba war a tase jamono bu Dakar équipe bu mag la ñoom it dañ leen a gagné vingt six à dix huit barewul noonu écart bi motul sax li nga xamante ni pratiquement mooy dix points ñoomit it ñoo góor ñi ñoo àndandoo ci benn voyage Njaga Njaay li ñuy jël xaj-xaj loo ci départ Diourbel jëm Dakar loolu aussi loo xamante ni la euh, les autorités de Diourbel war nañ war nañ ci bàyyi xel am ñaari équipe yu ne ci dëkk bi. war a dem demi-finale dugg ci benn njagandaay tànc loolu àgg fa li nga xamante ni moom mooy 14 heures bëgg añ bëgg dem ci terrain bi contre performance lay indi parce que duñ nekk à l'aise kon ñoom it euh, jamono bu Dakar moo leen vingt 26 à 18 moom it qualifié finale kon euh, ci information handball à Diourbel euh, olympique ñoon la ñàkkee ñaari demi-finale yooyu IGB gagné 33 à 27 ci góor ñi ci jigéen ñi. a gagné 26 à 18 euh, li nga xamante les dames Pour euh, les jógee foofu aussi ñu dem ci li nga xamante ni CAN féminine bi football footballu jigéen ñi Sénégal dafa qualifié qualifier dem football yi Coupe d'Afrique des Nations Nous gagné de yu de yi defee woon euh, fële Cameroun bii ba jigéen ñooy dem mais Maroc lañ organiser c'est du 22 juillet au 23 non du 22 juin je crois que non 22 juillet au 23 liñ ñu ciy jàpp nag moom mooy euh, équipe bi nga xamante ni moom mooy bu Sénégal jox nañ leen li nga xamante ni moom mooy seen drapeau bi nga xamante ni ministre des sports ñoo leen koy jébbal ak waa fédération pour euh, sonju leen taxawu leen par rapport ak performance bi nga xamante ni am nañ ko ñu yokk ko dem ci li nga xamante ni mooy coupe d'Afrique malgré que ñoom ak Maroc ñoo bokk poule Burkina Faso Ouganda Sénégal Maroc Burkina Faso Ouganda ñoo bokk poule beneen poule bi yaa Cameroun. Il y a Zambie, il y a Tunisie et Togo. Parce qu'il y a 12 nations, 12 pays qui ont le football. Euh, Nigeria, Afrique du Sud, Botswana et Burundi ont le football. Quand il y a 12 nations, euh, Sénégal, euh, ci poulam war na mën a fexe ba génn bokk ci ci deuxième tour pour qu'ils a dem ci li nga quart de finale yi euh, ba demi finale dem finale loolu lañ leen souhaité ñu répéter li nga xamante ni moom mooy gaynde yi góor yi euh, kon loolu dañuy jàpp ni euh, Coupe d'Afrique la mais ci wàllu jigéen ñi la mais ci football la parce que Sénégal fi mu nekk ni euh, jàpp nañ ni performance am na ni ñu koy defee ci championnat bi fii mais tey ñu ngi commencé génn di dem ci li nga xamante ni mooy sur le plan national am na sax ay joueurs yoo xamante ni tey sur le plan international signé nañ ay contrat ay club yu nekk en France di ñu fubal am na joueurs yoo xamante ni Diourbel lañ ne woon tey ñu ngi en France signé contrat di football ci club yu mag yi kon loolu aussi mooy football jigéen ñi am na solo.

jàpp nañ ni apt na jàll na dara jotu ko lu waxul dërëm wax ko euh, dem na aussi signé li nga xamante ni mooy contrat boo xamante ni mun nañ jàpp ni 40 euh, millions d'euros la des milliards yoo xamante ni tey Sadio Mané signé na ko euh, ni ko coach sam waxee muy ki nga xamante ni mooy Klopp mu newoon Liverpool ni Sadio bi ma tàggoo sama xol naqari woon na tey doon naa am ay jeexi jaaxa mais après j'ai compris que ni moom it mun na gagner beneen palier ci li nga xamante ni Euh, moom mooy euh, football parce que man mii di entraîneur bi Dortmund laa nekkoon fexe ba yóbbu ko ay final gagné ay trophée ci la ma Liverpool gisee jëlee indi ma fi nga xamante ni moom mooy euh, Angleterre kon tey Sadio bu fekkee dafay dellu jóge Angleterre dem fa li nga xamante ni mooy Allemagne di football aussi di championnat boo xamante ni Sénégalais yi miin nañ ko muy la Bundesliga muy li nga xamante ni mooy championnat d'Allemagne mu am ay équipe yu mag ay ay ay ay Bayern de Munich ay Dortmund Francfort Euh, Leipzig bari na euh, deuxième équipe boo xamante ni aussi euh, bu toll na Bayern ci taarixu football dañuy jàpp ni ay Rudi Völler ay joueurs yu mag ay Karl-Heinz Rummenigge xam nga wax ni ay Brügel ay joueurs yoo xamante ni dañ leen xam ki nga xamante ni sa tey mi ngi ci staff bi muy Olivier Kahn nga xamante ni Sankhor ak Sadio Mané góol la boo xamante ni ñi yàgg seetaan football. Euh, xam nañ ko ci histoire li nga xamante ni mooy football kon tey Sadio dem na ci dëkk boo xamante ni Sénégalais yi yàgg nañ ko seetaan parce que ay vingt ans ci gannaaw championnat d'Allemagne dañ ko doon génne règlement règlement télévision ci li nga xamante ni moom mooy RTS dañ ko daan seetaan football en Allemagne yéen a koy fàttaliku fa la ñu xamee woon ci wóoru bare ay ñoom euh, euh, ñi nga xamante ni wax naa ko sànq di voleur Karl-Heinz Rummenigge ñoo ñëpp fa lañ leen daan gis fii ay Félix Magath Paul Bredner Euh, ku ci dem demee aussi nga xamante ni moom mooy ay ñoom Foster bari nañ ay joueur Allemagne yi nga xamante ni euh, foofu lañ leen xamee woon ba ci coupe du monde yu mujjee jël euh, Franz Beckenbauer kon Sadio dem na ci dëkk boo xamante ni pays de football la boo xamante ni sénégalais yi miin nañ leen yàgg nañu def performance te ñu ngi koy ñaanal aussi ñoom fa fekk euh, roi Sané du doomu Souleymane Sané nga xamante ni yàgg na nekk capitaine équipe nationale ñoom ñoo bokk équipe ñoom ñaar ñoo war a nekk les excentrés titulaires euh, fekk fa aussi ay ñoom ñabri ay Muller joueurs yoo xamante ni aussi ñu ngi leen di gis ñuy def euh, performance yi nga xamante ni mooy Ligue des champions mais ci championnat d'Allemagne kon dañ koy souhaiter Sadio yàlla defal ko fa ndam te it sur le plan social gis ngeen li nga xamante ni def na ko dëkkam muy Bambali. Euh, tabax foo hôpital tabax fa li nga xamante ni moom mooy euh, euh, stade boo xamante ni wax na ko ni naa fa tabax stade naa fa def centre de formation ñuy former booy yi parce que football bi day joxe xaalis léegi tabaxu aussi benn école pour xale yi di jàng indi fa li nga xamante ni aussi mooy réseau wifi loo xamante ni tey bambali ñëpp dañuy connecté di xam li nga xamante ni mooy xew ci digital daal le monde entier en grosso modo nday xaar loolu mooy li nga xamante moom la ñu woon ci Actu xam naa dinañ ko gën a développé Euh, suñu émission bi nga xamanteni ni muy muy grand format VF Sport nga xamanteni ni samedi ou dimanche dina jall ci li nga xamanteni moy télé bi euh ma koy def man ak euh, Thiola France dañu am suñu invité euh, kon ñi ngi remercier les téléspectateurs de la télévision VF TV di remercier aussi suñu technicien Yankoba xaar di la jox dajé ci benen numéro ci li nga xamanteni moy Axe Plus rubrique sport merci beaucoup.